ñu koy mengalé ak walu politique waye demeewut noonu. Mhm. ni ñu ko moy euh conduite sans permis de conduire. Mhm. dafa don dawal benn auto le 10 octobre bi ñu weesu mu am kenn ku mu laal euh, teg ci euh, police dal di gendarmerie dal di xamné ni faux et usage de faux def ko def bala waral ñu garder ko à vie à vue mais da ngay gis né daaw dans le débat public certains dañuy soutenir ni euh, walu politique motax ñu japp ko ñen ñi sax di réclamer à ce que ñu libéré ko. Mm-hmm. Euh, bu ñu démé ba ci réew Daouda. Mm-hmm. nga def infraction en tout cas un délit. ñuy demander à ce que ñu libérer la personne ñoñu seen jubluwaay lan la exactement. Mm-hmm. xam nga lool da lay wax ne jubluwaay boobu mooy. cabinet bi nga xam ne moom la ñu seen première sortie lo xam ne yoonum zand liggéeyum gendarmerie yooyu yoonum liggéeyu justice la nga ñew nga gis ne ñoo ngi tàmbalee manipuler sénégalais. mooy première sortie bi si boppam ñi nga xam ne ñoom nga si gis. Mhm. première la ñu wax jëmale ko ca amandoo yi nga xam ne amandoo yi tey moom la ñu lijjanti mbiram ndax am na permis wala amul permis nga gis ko ñoom ñu utiliser ko li nga xam ne moo di politique da nga xam ne kon cabinet bi ma la doon wax ne si tappale la ñu nekk loolu mooy nekk li xew mooy C221 bi cabinet bi nga xam ne moom laa tuddee ka maanaam cabinet wu Amadou baax beneen bi. lan nga si jàppe mooy amul euh, est-ce que tey euh, sincèrement si politique Ameth Ndoye am na lu mu mën a représenter bu ñu jël dossier boobee def ko li nga xam ne moo di dossier politique wala nga jàpp ne am maanaam ah, maanaam amendo yi dañ koo téye li nga xam ne moo di wàllum politique li ma la wax ne mooy C221 bi cabinet bi nga xam ne Cheikh Yérim sekk dañ ko teg mooy seen objectif dëgg-dëgg nan la ñuy def ba ñu tegee kenn loxo ñu diaboliser mooy ki ñu téye tey otage politique la ku ñu téye tey dafa sone gouvernement bi léegi noonu la ñuy def ngir utiliser ko au niveau international aussi utiliser ko par rapport ak société civile bi léegi ñëpp jug ne gis ngeen liñ leen doon wax ñii li ñu doon bañ si nguuru maanaam Macky Sall ñoom la loolu la ñu nekk di def mais benn bi mooy boo xoolee est-ce que Ameth am na lenn te yow yaa ko waxal sa bopp yaa ne laalewul li nga xam ne moo di wàllum politique dans un état de selon les faits li waral ñu selon les faits benn lien ak politique ça c'est clair dans un état de droit mm. tu es sénégalais am nga li nga xam ne fiir nga benn nit. Mhm. nga fiir nit ñu ñëw def li nga xam ne moo di constat. Mhm. ñëw xool kookee am na li nga xam ne moo di fracture am si zamba. nga gis ne kookee sapeur pompier ñëw na ko jël gendarmerie ñëw na dans les normes chauffeur bi si boppam dina ko posé maanaam gendarmerie bu ñëwee dina laajte chauffeur bi ay këyitam. Mhm. mais bu la laajtee say këyit nee la ana sa permis nga ne sa permis moo ngi Dakar ñu ne waa d'accord. ça permet nga dak dans les normes fraction bi nga njëkk def moy pourquoi nga conduit sans li nga xamné modi permis légui ñu nangu la ko nekk bi légui dañ koy bay fi nga xamné moy mooy euh, gendarmerie bi légui comme né nga ce permis moo ngi Dakar légui demal jëli ji ce permis demal jëli ji ce permis jissuñu la ñu convoqué la jeudi au moment où biñ la convoqué dila xaar moment bobé yaangi sasal police ak gendarmerie hmm. yow ñu lay demander ngir nga andi permis

laaj ko permis yorul permis kon mën nañ jàpp ne gouvernement wu Sénégal si wàllum politique ngir jaay doole ab opposant mën na dem service mine dindi li nga xam ne moo di numéro Barthélémy Dias ñu ne Barthélémy Dias kon amul permis loolu li muy wane mooy kàddu yi Cheikh Yérim Seck yëkkati amul lu ko gën a rëy rawatina li ma jàpp ne dans un état de droit Cheikh Yérim Seck fu mu mënti nekk mhm. dañ ko war a woowu ji ñëw ndaxte li mu def li nga xam ne moo di diffamation beneen bi amet mhm. leneen li nga xam ne moom la ñu gis si permis bi boo xoolee atestation bi nga xam ne moom lañ ko jox boo xoolee numéro ya ca ne bi ñu demee si service mine nduroowul ak numéro yi nga xam ne moo nekk si maanaam numéro yi ameen dooy joxe bi ñu demee si permis boobee turu keneen na ca ne léegi question bi ñu war a posé est-ce que Ameth am na permis beneen bi mooy attestation bi Ameth Ndoye kan moo ko ko defaral benen bi moy Cheikh Yérim Seck cadeau yi nga xamne mom la yëkëti mais aussi Ameth Ndoye yow miñu tok toog convoqué la tax tok di la xaar andi wo loolu nga mëna dem tok di sosal li nga xamne ne moo di gendarmerie euh, police légui nak fi yi bu tégo ben objectif la ñu am moy Ameth teg nañ ko loxo Sonko nekk ci ginnaw jomay mo nekk ci ginnaw loolu la suñu politiciens yi sérieux wul fii dans un état de droit da ngay gis nit koo xam ne def na musibam def na li nga xam ne moo di guutam léegi moom jëlul ay responsabilités wane ne amul permis wala wone ne permis am fa reer way ñu defare ko attestation tay mu fiir xalé fo xam jomay jomaay nekk fa sonk nekk fa passef nekk fa même personne yoy ngay gis tay ñu ne tey jomaay ak sonk mo nekk ci ginnaaw lool nak warul am ci li nga xam moy mooy si mi loolo tax ma ne la C221 bu Cheikh Yérim Seck bi seen premier liggéey wone nañ ko moy ci manipuler waaye wax lo xam loolul am la te amé ndoy ci ñom la bok léegi nak dans un état de droit comme Ameth xaar nañ ko ñëwul lañ doon xaar si moom defu ko léegi fu mu mënti nekk comme moo ngi sàllaw di maanaam di sosal waa gendarmerie wala police dañ koy woowu ji léegi mu ñëw léegi nag na génne li nga xam ne moo di permis bu amulee permis ñu xam ne kon amati mosul am permis il faut dire que la gendarmerie a eu l'amabilité d'attendre mu pare conférence de presse am mu doog ko woo jël yóbbu et je vois qu'il a affaire avec la loi et c'est pas une affaire politique donc ñu leeral loolu euh, jeexale Daouda ci dernier point B, mm-hmm. très rapidement hein.